Alassane Hann maa ngi lay nuyu. Euh, madame maa ngi lay fay maa ngi lay waa Alassane Hann nga jiite collectif des soixante-dix-neuf familles euh, ya ñu euh, génne woon foofule ca Wakam Terme Sud mu mel ni dafa am lu bees ci mbir mi parce que euh, actuellement ñu ngi daaneel kër yi nga xamante ni moo fa nekkoon loo ñu si mun a wax par rapport ak situation boobule. waaw madame euh, lundi bi passé donc une semaine aujourd'hui Euh, dañu xëy rek ñu jox ñu xibaar nañu ay caterpillar euh, ñu ngi daaneel kër yi nga xam ne fa lañu dëkkoon ma fàttali leen rek ne euh, ñun ay militaire lañu dëkkoon ci terrain privé état du Sénégal état du Sénégal demoon ba jël terrain bi di ko jox ay tierce personne ñun ñi nga xam ne fa la ñu dëkkoon ñu daan ñu couper suñu indemnité de logement demoon ba cent mille francs ku nekk weer wu ne nga di ko fay ci kër yooyu ba pare di jël kër gi di ko entretenir entretenir environnement bi Sénégal jël état du Sénégal dem ba jël site bi di ko morceler di ko joxe ñu demandé ko depuis président Abdoulaye Wade ba Abdoulaye président Abdoulaye Wade defar ay këyit pour ñu jox ko ñi nga xam ne au moins kër yi képp ku nekk fi nga nekkoon ñu jox la ko li ci des ñun. ñu ngi dëkkoon sur une superficie de plus de quinze hectares ñun kër yi ñu occupé woon deful woon sax quatre hectares li ci des yëpp espace vide la ñun ñu ñu waroon ñoo jox suñu kër yi ba gëmloo ñu ko ba état du Sénégal defar document yi ba gëmloo ñu ne ñun attribution boobu c'est pratiquement effectif yow nit ki nekkoon fa ak njabootam mu jaral ko mu dem ba. parole état nekk parole d'honneur mu jël xaalisam yëpp moo xam tontine la moo xam prêt bancaire la moo xam mission nga dem dellusi si moo xam sa soxna moo lijjanti def ci moo xam say doom ñoo yëngu def ci ñu jël kër yi defaraat ko ba mu mucc ayib ñu xëy suba teel euh, ay ay ay ay ay militaire mbubb seen coopérative daal di ñëw dal suñu kaw ci anam yoo xam ne teguñu ko woon 30 septembre boobu 2020 ñëpp teewe nañ ko euh, disons en direct ñëpp seetaan nañ ko ci tele yeeg rajo yi keroog bi ñu tafee loolu seen njombe googu ba ci ngoon si bi ñu demee ñu génnee kayit yi këyit yëpp wane ne lañu ñu def yëpp teguñu ko woon fenn dégg nga kayit yi amuñu woon benn droit di dal suñu kaw benn ñaareel bi terrain bi nekk terrain état boo xam ne tey jii bu fekkoonte ne sax état bi dafa bëggoon a jël jaay ko comico fa ñu waroon a jaar jaaruñu fa maanaam waroon nañu dem ci assemblée nationale assemblée nationale voté leen loi boo xam ne dañ leen di permettre ñoom ñu déclassé ko ba pare euh, commission ñëw ànd ak ñoom ñu def tous les travaux de terrassement dégg nga de démolition de terrassement de viabilisation ba pare soog a mën a passer à la vente te bu jaay waree am sax Euh, euh, gouverneur moo ko war a jaay ñu escamoté loolu yëpp daal di jóg dem def seen tappale dem ci euh, directeur de domaines mu signé leen kayitu trois hectares ne ñoom moom la ñu jaay coopérative boobu nga xam ne du ñu militaire coopérative du militaire association la ku mu neex bokk ci ku mu neexul doo ci bokk nga ñëw fekk ay militaire ñu nekk ci ay kër yeyoo ko yoon jox leen ko nu tuddati diine jox leen ko aada jox leen ko parce que amul fenn fooy fekk nit mu dëkk ci bërëb euh, jur fas ay doom ay sëy sosu fa muy communauté bu installé wu nga xëy suba teel naan da leen di dax indi ñeneen dugal leen foofu léegi nag ba ñu defee loolu ba au soir du déguerpissement këyit yi wane loolu ñu dem geler terrain bi malheureusement li ñu njëkk a def mooy première phase bi mooy ñu jël mur de clôture sur les quinze hectares plus de quinze hectares ñu clôturer ko kenn dootu xam lu xew ci biir ñu xëy suba teel pendant plus de trois ans ay rab ñoo fa dëkk ay golo ay jaan ay jaar ñun ñu nekk ci biti ñii amuñu fu ñu dëkk ñii dëkk en nekk en location ñu leen di génne à gauche à droite léegi traumatisme bi gagné ñu ñenn ci ñun ñàkk nañ seen ba bakken euh, mënoo toog weer wala ñaari weer wala ñetti weer yoo xam ne kenn tàggeewul la kenn ndax traumatisme bu méttee méttee métti xale yi doon jàng seen jàng yàqu ndax lan ndax ay samba booy yoo xam ne li leen soxal rek mooy terrain bi tey dafa am valeur euh, ñun yeyowuñ ko naanañ ba ba Terme-Sud du woon dara ñun ñoo fa dëkkoon ñun ñoo ko doon toppatoo tey ñu ne Terme-Sud am na valeur ñun yeyoowuñ ko nañu génn caqaj ñoom ñu ñëw jël ko doyowuñ ko dara lu dul di ko jaay soppi ko xaalis def ko seen poche ñenn ñu jël ko may ko seen soxna seen soxna dañu daan fekk ci biir terrain bi indi client ne ñu leen kër yi ngeen dëkk ñun ñoo ko moom suñu suñ sama jëkkër moo ma may bàyyi dama koy jaay moo ko may cadeau anniversaire loolu yëpp dund nañ ko ah, tey jii nag euh, dem nañu ba ñoom ci seen bopp xool nañu dem nañu moo xam lan lañ ci jublu ñëw nañ fekk ay bâtiment yoo xam ne bañ leen fi taxawalee boobu deuxième guerre mondiale la Euh, ay américains ñoo ko fi tabax à proximité ci seen piste d'atterrissage ba ñu ba ba bañ ko tabaxee ba pare dem bàyyi ko français yi français yi jóge fa bàyyi ko sénégalais yi sénégalais yi armée ko ba soxlaatu ko delloo ko état du Sénégal état du Sénégal xëy di ko morcelé ñu ne léegi ñun ñu defar suñu këyit depuis président Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade moom ci boppam joxe ay instruction pour ñu jox ñu ko ñoom ñu ne ñun yeyowuñ ko jaar ci suuf dem naan dañ ñu toroxal loolu mooy wax ji ci terme sud terme sud nag biir wakaam la ne donte donte ñun xëy na sax tey ji kenn ñu génnee wakaam parce que ba ñu nekk ay xale yu tuuti yoo xam ne euh, demaguñu fenn la ñu dogg ñëw dëkk wakaam ñun ñëpp fii la ñu takkee soxna fii la ñu juree ay doom ñenn ci ñun takk ay doomu wakaam ñu nekk tey jii ay wakaam mooy pur sang dégg tey jii terrain bi ñi ko war a jëriñoo ñi ko war a yeyoo mooy ñii ñun ñu fa dëkkoon ñii lii coutume wakaam lii euh, di nu mu tuddati euh, cellule administrative mairie bi dégg nga ñi nga xam ne daal ñi ko war gën a yeyoo tey ji mooy ñu dëkk Wakam muy ay morcellement yoo xam ne ñu ngi koy jox ay ay ceer nan ngay mën a fekkee nit ku dëkk pendant plus de quarante ans euh, ñu jur fa ay doom nga ne ko génnal ñu jox ko keneen koo xam ne mosu fa teg tànk dërëmam mosu faa dem waaw loolu catastrophe boobu tey jii euh, en tout cas gis nañu maire de Wakam waxtaan nañu moom jox nañ ko suñuy doléance mu war ñoo war a dellu si jox ñu réponse am la ñu xaar nag Euh, trois ans euh, après euh, expulsion boobule socialement naka ngeen naka naka la ko soixante-dix-neuf familles yi di di dundee Alassane catastrophe la madame xam nga yow nit dëkkuwaay ñëpp xam ni dëkkuwaay mel tey jii ci Sénégal en particulier ci Ndakaaru yow boo dëkkoon ci kër goo xam ne abrité nal la yow sa famille say doom say jabaru doom sa yaay sa papa dégg nga famille élargie africaine nga xëy suba teel ñu génne la ci biti foo jëlee foo dëkk néeg ak saal rek boo ko bëggee tey boo deful deux cent mille doo ko am fii fii lay say doom juddoo fii lañ yoroo fii lañ doon jàngee tey ñoom ñëpp pratiquement seen njàng yàqu na dégg nga ñu ci des képp ku amoon feebar nga doon ko suuxaale waroon a dem de temps en temps à proximité des hôpitaux ngay faju tey jii demee na noo xam ne yóbbu euh, daw nga dem foo xam ne xëy na amuloo hôpital boo fajoo amuloo moyen yoo fajoo ñu ci bari ci ñun ñàkk nañ seen bakken ñun suñu soxna ñàkk nañu seen bakken suñuy doom ñu ngi ñàkk seen bakken ñu ci des ñu ngi tëdd ci seen lal di xaar euh, ëllëg loolu pour lan ndax lan ay sambabo yoo xam ne ñoom ñoo jóg taxaw ne ñun daal duñu ay nit dégg nga ay ay ay ay ay mbaam lañu euh, mbaam sax moo ñu gën tooñ ñu toroxal ñu ñëw taxaw jaay ñu doole te loolu yëpp du dara lu dul jaay doole kese parce que ñun ay militaire lañu suñu carrière yëpp ci armée lañ ko def ñii dem nañu euh, guerre dellu si wuñu ñii dellu si démembré Euh, dëkk ci ay kër Sénégal moom ko ñuy ay sénégalais du ñu ay gambien du ñu ay mauritanien du ñu ay burkinabé nekk ay sénégalais pas des sénégalais ordinaire mais ay sénégalais euh, pur sang yoo xam ne dañoo euh, joxe suñu suñu life suñu lépp pour servir nation bi ñu xëy suba dal suñu kaw ci anam yu demee noonu te laajuñu lan lan la ñu laaj ñun fi ñu dëkkoon muy ay terrain yoo xam ne Sénégal la moom di ko jox ay sénégalais. ah laajuñu ku nekk lu dul parcelle bi nga dëkk tey mu ñu war ko morceler mu war a nekk plus de huit cent parcelle ñun defuñu sax soixante dix neuf parcelles ci huit cent parcelle loolu mooy lan ñun wuñ ko ah ñi ko yeyoo daal mooy ñi ñu ëpp doole nga xam ne tey jii nekkuñu dans le besoin soxlawuñ ko lu dul soppi ko xaalis neexal ko seen soxna ngay toog ba soxna kilifa ñëw taxaw fekk la ne la jógal fi nga dëkk sama so sama jëkkër moom ma ko may da cadeau anniversaire xaw nga dama koy jaay client baa ngi nii taxaw loolu loolu ana lu ko gën a ci kii ah bu so boo toppee sa xol sax di nga def musiba te doo ko tey. Euh, léegi euh, naka ngeen fas yéenee def euh, pour li des ci xeex bi Alassane euh, ñun nag dañoo dañoo dañoo am euh, ligne de conduite waaw xam naa ne am na ñoo xam ne bu doon ñoom la tey jii wax ji tëdd na bu yàgg parce que rey nañ leen wala ñun nag dañu am lañ luñ ñu kon léegi nag boobu ba léegi ñu ngi déglu état du Sénégal ça fait trois ans euh, wax ji delloo woon nañ ko tribunal tribunal demoon ba war a délibéré daal di jël dossier bi teg ci tànkam gelé ko xamuñu lu tax délibéré parce que li ci li ci jot a xew gannaaw gi yëpp ñoom xam nañ ko xam nañ ne njombe la waruñu woon dal suñu kaw waruñu woon sax jege léegi nag problème bi mooy euh, gise nañu ak suñu autorité locale waxtaan nañu moom. jox nañ ko suñuy doléance moom ci boppam dana ko yeggal état bi le plus rapidement possible état bi dina ko jox euh, réponse am li ñuy laaj daal mooy ñun ñoo fa dëkkoon domaine la boo xam ne état moo ko moom sénégalais lañu dañ koy joxe à usage d'habitation joxoon nañ ñu ko logé ñu ci morcellement administratif bu cadastre defoon euh, signifié ñu ko ñu gis ko jaxaran am plan beeg yëpp nañ ñu jox suñuy parcelle 79 parcelles yi ku nekk nañ la jox sa parcelle nga téye ko sa loxo ñu soog a lijjanti li ci des waaw. mais est-ce que gisoo leen ni euh, déjà ñàkk ngeen xeex bi ba pare. Euh, soxna si. waaw. Euh, ñun ay soldat lañu boobu ba léegi ñu ngi des di yor suñuy ngor di ànd ak suñu teey ak suñu tekk lii nag dama lay wax ne la. Euh, bu ñu bëggee euh, safaan nañu continuer ci nii mu demee nii euh, bu yeboon nag ñu gasal ñu suñu bàmmeel. ñu laaj la si dossier crash avion Air Sénégal fan la mbir mi toll si côté yoon. waaw Air Sénégal mooy sénégalais plutôt mooy li li mooy presque terme sud rek. injustice boo xam ne kenn mënu ko natable kenn mënu koo natt yow man ma nekk maanaam yor compagnie aérienne nekk responsable technique gis njombe gu toll ni ay autorités ñoom président de la république ñoom ministre ñoom directeur généraux ñoom ñoom ay première dame laa doon yàpp di leen yóbbu ci ci ci ci ay roppalaan ma gis njombe guy ci ma wax ma ma ma ma alerté euh, artu ñaan leen ñu dem ba direction générale aviation civile wax ak ñoom ne leen kaay leen wax ci d'autant plus que compagnie boobu man samay samay naataango fa la ñu deewee en 1995 yomb na lijjanti leen ko balaa musiba di am ah ñu jaar ci suuf xeex ma dàq ma may galère depuis 2013 2015 euh, roplaan gi ma doon wax dem daanu ci biir géej gi xooju ak ay nit ñu wër ba sonn gis ñu ko tey dossier bi ñu jël ko yóbbu ko tribunal ah tribunal war di ñu àtte booba ba léegi ah depuis deux mille euh, depuis deux mille vingt deux mille vingt et un dossier baa nga tribunal tey ji ba léegi mënuñoo yëy yàbb ci mbir mi le vingt huit décembre bi ñu war mën a taxaw devant le tribunal ñañu wala ñañu war a euh, xool seen i mbir ah ñi nga xam ne ñoo nekkoon responsable autorité aviation civile tey ñu inculpé leen ñoom la ñu war a juger man ma nekk foofu en tant que témoin principal ah le 28 décembre bi ñu war a tase pour juger affaire boobu muy lu méttee métti loo xam ne tey jii tere nañ maa liggéey ëpp nañ ma doole dal nañ sama kaw génne nañ sama njaboot ci kër yi xañ nañ ma sama liggéey te sama licence mënatuma liggéey fenn mënatuma am lu ma dundalee sama njaboot Sénégal moo demee noonu daal ci jamono yi ñu toll. voilà Alassane ñu ngi lay remercier en tout cas bu baax a baax. si disponibilité bi ñuy fàttali ni Alassane Hann yow yaay jiite collectif des soixante dix neuf familles ya ñu euh, génne woon ca Wakam Terme Sud ñu lay remercier bu baax a baax Alassane